téye Maam Bamba Xadim Rasoul jëm ci Cheikh Mamadul Muntaxa xalif général di murit kaamil alxuraan ak ay montur yu taaru lool yàlla na sëriñ bi nangu àddiyee ji te làqal la ko fi yàqaagut parce que Cheikhul Xadim seneel nga sëriñ bi lim gën a bëgg ndax yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xabla kunta tabibi la sëriñ Tuubaa wax defal nga sëriñ Tuubaa lu ne waaye xéewal yi nag moom dana neex sëriñ bi lool yàlla nañ ci daje ngërëmul sëriñ nga xamni mom ngay sakku ci magal gi diko sakku ci jëf yi ngay jëf yépp la nga ak mom ci addi ji nga indil Cheikh Mamadou muntaha tay ji fi ci daru Minam barki Cheikhul Khadim imba tawfiq Hmm? fii nag ay waxante góor a ba ma jigéen mënu dee Thank you.

mbooloo yëpp duggaat na seen bopp maa ngi déglu ko. pour dugg benn nit dong la sa def ko ko ko ko ko nee na li nga xam mooy li gën a bëgg sëñ Tuubaa lépp màggal Tuubaa gu ne dana wut lu mat ñaar fukki bis ak lu dul mais yéen ci wàllu tàggat yaram nga ñaanal ko ndax lépp moo gën mag. nga ñaanal ko mu gën a bëgg sëriñ Tuubaa rek. seex naa dégg na ko. dana ñëw moo nekkoon ak service bi. màggal Tuubaa ñu ànd ak xaadim ñëpp lañ tàllal yooyu yëpp ñu mën a fekkee amul amul nekk nii parce que dama bagage bi. ay ko xamante góor ak jigéen mënu dee

a ngi waaj a